commissaire wird am Kanzler im Land vor. jël na photo yi jël nañ photo yi ngeen filmé ko ba arrêté Sénégal moomu leen moomu leen ko ba ma kenn du ko def ba may dox Hey, hey, hey! Non, non, non, non, non, non! Hey, hey, hey! Allez, viens là, viens, viens. Eh, sànni grenade. sànni grenade sànni eh, pour lan pour lan ñuy sànni grenade non non eh. bàyyi ko bàyyi ko eh bàyyi ko eh eh dañuy dox am nañu droit. sànni grenade sànni grenade. sànni grenade. wàcc leen wàcc leen wàcc leen Malick wàcc wàcc leen. Comme vous le constatez, hein, service de l'ordre, le maire day génn di dem. ñu ne ko du jàll voilà voilà mais on a le droit de marcher non mais eh eh dóor commissaire il faut assumer assumer danga may téye danga may téye danga may téye filmé leen filmé leen nag maa ngi nii danga may téye eh non non non dugul waay dugul dugul eh eh, eh. eh sama mère laa téye de eh. waaw ah, ma waay wàcc leen tey oto yi waayeen monsieur le commissaire mais du yoon nag ah. grand sama liggéey laay def ah. voilà waaw man fi ma taxaw nii def ma dara sama liggéey laa def yéen a ko gisandoo ah ñu ngi jiyee ñu àpp nañ le maire Barthélémy Dias donc ñoo ko gisandoo ah le maire Barthélémy Dias da doon def dox mbokk le commissaire de Dieuppeul japp ko duggal ko ci biir auto bi dëkk bo xam amul loi am nañ droit dox ay Malick taal ñu dem ay nit sax. waaye demal demal demal rek demal demal. aywa. grand jégal ñu jégal ñu jégal ñu demal jégal ñu rek. saay jégal ñu ñu ngi jugal. waaw mais ma jaala ma jaala bu ma xuma la ma jaala. bu ma xuma la bu ma xuma la waaw bu ma xuma la. Vamos, waaye demal demal. eh seen seen. donc ñoo ko gisandoo oto police bi arrêté na le maire Barthélémy Dias parce que da doon dem defi waaye fay ci kanam xaw ma fan la jëm exactement. klaxonné ko klaxonné ko. seen oto seen seen. seen jël la gauche gaal tuuti jël la gauche demal rek bon xamuñu fan lañ ah. ñu ngi def le tout pour jéem ko rawale gauche gauche ngay def Le maire Barthélémy Diaz vient d'être arrêté par le commissaire Mbalo. Voilà. police bi me again. quá chứ lên quá chứ lên à. Eh, kena bumalah, dah mai dah deh, bumalah deh. Eh, watch it, ah. Nancy. Hey, what's up? Hey, hey, what's up? Got it, man. Ah, ninyo. Get it. No, ninyo. Hey, got it, hey. You see me, bro, ninyo. Hey, got it, Taufi. kii du ko waxee. grand ñun tamit suñu liggéey lañuy def. li ngeen def du yoon du dëgg du yoon. li ngeen def a ma laal. eh bu ma laal laa li ma la wax voilà. man sama liggéey sama eh

ça eh ñun dañu doon def suñu liggéey. defuñu tous. voilà suñu liggéey lañ doon def. suñu liggéey dañ doon dem dëkk. keneen naa fi dara toogal. laay def baala moo la baala rek man kenn du ma def dara man sama liggéey laay def de. maire nee na nga arrêté nga publier li ñu am.

Baax na waay yow Calma, filha, então, vai, vai, vai, vai, vai.